salaamaaleykum Aliou. waaw Fapal. maa ngi lay. waaw sant bi. koy jëm toog ko sa toog di ñëwee bëgg a toog nga ñëw jël sa tànk aj ko fii ah. réew trop. ngeen eh, trop. an sa papa. sa papa dafa génn. ku jëm. may wax ngay ay kii di sëgg fii nan génn. yëpp lu tax ngeen réew. ah. yow sa papa bërki démb moo njaay fii bañ koy jaayal xar mi di ko di ko ko jox muy muy muy muy uti passeport di passe tukki fi la nu fekk man daal xawma la moo tax man man man daal man daal xawma la moo tax sénégalais bu ko fukk téye bu amee sang rek fuuy ah yow xuma yow sa baay new fi waaye li ma ko waroon wax naa la ko wax sa baay fuuy ne réew na du gett du randu ñëw nañ fi di wax ak moom muy jaay réew nde koo xamante ni te xamul ni ñoo gën a réew yow xanaa moo tax man booy booy am ñu dañoo réew xooku mii dafa kanam a ngi mel ne rato waaye da baax bu sa bàyyi ko waroon a wax wax naa la ko boo ñëwee nga nekkoon tey suba dugg naa sa néeg gisuma la pourtant nekk ci néeg laa nekkoon est-ce que bu ma demoon boutique ba tourné naa sa kaw sax di la xool pour yaakaar ne foofu nga nekk waaye gisuma la boutique ba laa demoon bi comme sa nga de xanaa daa am fooy demati sama xarit laay xaar kii moom boo sañsee toog rek xam nga ne da ngay daal lu mel ni gën te la ah, yéen a war a ànd. naa fa ñu war a dem. jotee daal yéen xale yi jigéen mën ngeen a du ngeen toog lu ne ngeen dugg ci. xam nga tabaski boo liggéeyantu dara du sotti. Ah. fa nga génn uti moo tax ma naajee yow am fu ma demoon rek nga liggéeyanti. nu nga demoon ah, liggéeyanti ma jàppale sama borom kër tamit sotti na. am naa ci yaakaar. Mm. sama kër moom ñaara ko yor. am naa ci yaakaar. waaye na nga góorgóorlu yaag sa xarit boobu ci loo te aussi yi xale jigéen yaa ngi ciy def lu jar a jarut lu mbon gu ne dinañ ko def ndax am sëba wala jasneer wala daal la saak àdduna amul solo góorgóorlu leen maaleykum salaam waaw Aziz si loo nekk ça va gi ñaar a gis maa ngi nii yaa ngi jaww maa ngi nii ça va toxee nga naaj bi yaa ngi jaww ça va ça va bien sama journée waaw journée baa ngi nii rek ça va yaa ngi jaww waaw ki sama xarit la ki sama ah, mag la yaa ngi si ah, jaww maa ngi fi ah, awa bàyyi leen ngeen waxtaan waaw ci loo nekk nga de taxi. waaw kon woyu waa Seck rek maa la nga ko. lépp jaune noir. mais ndox na nga laaj. waaw gis nga de maa ngi nii rek xam nga rek yaa am gën a xam. naka ma nag. ça va. yaa na ma naal de. maa la raw. naka tàngaay bi. tàng na jër. li ñu laa gis de. maa ngi nii dina nam rek. Hmm. temps yi bàyyi nga ma de. ma bàyyi ma sax xam nga rek na ci ay liggéeyante quoi moo tax. kon dina sotti. mais yow wax ma la korok am benn xale bu àndaloon de man waaw benn xale bu neex. xale. nu mel mu dégradé boppam. waaw waaw waaw. kilo. kilo. sama xarit bi neex na. bàyyi sa waxu wayu nii. moom xale bi dafa neex. loo gis si moom. non oh, billaay xale bi dafa neex xoolal. Oh, xale bi ba ma ko gisee ba tey xoolal damaa taxale ko sama sago mënutuma nelaw. jàppal maa la fi nekk sotti na ba pare ndax la. moom xale bi damaa neex xale bi neex na. waaye yow man man man damay bëgg a man man damay bëgg a jommeem lii lan la yow kii kan la. kii sama xarit yow téye sa loxo nga naan yow gisoo naa bi ni mu tàngee xanaa yow lay def yow lay waxal. non si laa doon seet quoi. nga naan si jugal jugal jugal après dinaa la woo dégg nga eh ñi nga naan ay nan déggante man daal buuy man vous êtes indiscipliné quoi gënal kër gi sa kanam gi mel na mat neuf mi ñaax ngeen jom torop heure bii ngeen di doxal heure ndaaj bi tànn bi yow moom yow laay waxal xaw ma yaa ngi dégg xaw ma déggoo ma gis nga fii bu mu duggatee ba fekk fi góor di nga xam ne tamaate loxote loxotee tax mu jeex